ndaxte bu waa quartier bépp bëggee maase dem place Yacine Mbuub beneen koñ def loolu beneen koñ def loolu waa bustaanu Xelkom ñi nga xam si liggéey bi sëñ Seex da ko teg seen loxo sars boobu dana diis lool amaan dana ko jëf sax waaye dana diis bu ko ci nekk fexee góorgóorlu ba fexe nu mu woyefale liggéey bi ku nekk fa nga nekk nga fexe ab waruwaay fexe ànd ak mbokki taalibe yi dem ñu def ko loolu nag ba ko waa daayira sopp Sali daayira sopp Sëriñ Saliou xamee yàlla dogal na daaw dañoo taxawal fii ak oto mbokki taalibe yi nga xam si ñoo déparé fii dugg ci ban demee ba place Yacine Mbour ñi yàlla dogal ñu xajaat oto bi tàbbi ci oto bi te loolu yaakaar naa day yombal liggéey bi day gën a fawxal liggéey bi loolu tamit yàlla dogal na ren bii defaat nan ko noonu ndax daayira sopp sëriñ Saliou fàggu na ak oto oto boo xam ne si fii ci quartier bi lay déparé wuti place Yacine boobu ànd ak mbokki taalib yi dem xel ko yàlla dogal na mu am liggéey boo xam ne sa cee doole ko waat bi mbokki taalib yi xoolee ba xam ne mbokki taalib yi bàyyi ko fii ci quartier sëriñ Saliou takku na takku boo xam ne si suñ bëggee di wékkuwaat ci waa bustaanu xelkom amaana ñoom mën nañ ko te it am mutuel ñu ngi koy def te waa daayira Sopp sëñ Saay taxawaay bu rafet bu sell dañuy taxaw ci ñoom waaye ñu jublu ci gën a yombalal liggéey bi waa daayira Sopp Sëriñ Saay ne mu néew mu bari danañ toog ay mana yoo xam ne si ñiy ci quartier bi ak ñi yàlla dogal ne yàlla boole leen ci ñu togg ko ngir ñu xew xewlu ci loolu ren dool li wax nañ ko ci liggéey di leen xamal ne tamit daayira Sopp Serigne Saliou duñ yam ci toogu reer wut oto loolu rek jagalul xel kom dañoo am yéenay addiye yoo xam ne si dañ koy yëkkati mu jëm ci gasoil bi nga xam ne si mooy jëm ca tool ya juróom gerte ga am ngooñ ma ak añ yi nga xam ne si ci la mbokk taalibe di añ muy sas boo xam ne si daayira sopp sëriñ Sall dañ koy yëkkati jébbal ko waa daayira bustaanu xelkom ci njiital sëriñ jiiloo ak sëriñ moorloo kon dañuy woo sëriñ xaarim fall wakaana xaqan mi nga xam ne si moom mooy jor mi daayira sopp sëriñ Saalim woo sëriñ jiili sëriñ xaadim jébbal addiyee jooju ñu jox ko waa bustaanu xel ko boole koog nag xeeb ko lool xel ko bii lépp loo xam ne si defuñu ko ci rek dafay ñëwagul lépp lu fi ñëw rek nan xam ne ci liggéey bi la jox suñu xaarim aaj suñu xaarim faal nee na nga jege si yow ndaxte jëf ji nga xam ne si daayira sopp sëriñ Saaliw dañ koy jëf bokk nga ci teete daayira bi saa su yaa ngi ñuy soññi saa su ne yaa ngi wax ñuy góor lu baax ci liggéey bi ñuy jéglu nag waa Bustaanu Xelkom lii nag li ko waral mooy mbokk taalib li nga xam si am mu jot dañ ci def seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm buñ sañoon addi yi ñoo xam si ñoom lañuy joxe ñii xam fi muy dem ñii xam fi ko waa daara sopp suñu saaliwu dugal te ñu koy dugal fu mu mat fu mat dem ku xam jëriñ yi seen taxawaay ci liggéey seen saaliwu kon bu ko defee suñu xaarim Fall ñu ngi sant tamit suñu waajur bu baax nga xam ne si bis bii dañ ko koo tuddee muy suñu baay ñàkk Juuf di suñu di jàmbaar ci daayira sopp sëñ Saliou ay doomam yëpp mu jël leen jëbal leen daayira bi moom it nee na mi ngi sant mbooloo mépp bis bi kontaan na ci xolam it sedd na ci moom it mi ngi koy dellu ak cant bu baax a baax a baax sëñ Xaadim bismillah xel ko ma dem xare toolu yàlla daal bu wér ku dib julit buñ ko woote wuy ji rek